sab goro siisee bala ngaa yàkkale na reen bu sa jëkkër fiiree bul bëree góor gu ko doyul boo dëkkee comme nay nag lu mam bàyyi nag moom loo am jox ko booy sëy te nar a jub loola waaye di digal te di ko nëbb sa jëkkër rek sab goro lànkal ndax ab sëy bu ñett baaxul ñett du baax sëy bu ca bàyyi àndul barke du ca wàcc ah, sëy bu ndey àndul tas weesu ci mhm. jigéen jëy sëy su bëggul jëkkëram doom ju juddu manqué mhm. ku yàlla may njaboot ku jigéen nag te góor góoram may ko jabar bu sëb sët di la góor luñ ko maye jabar dañ ko yaakaar mbaa ñu ñee ko rek. Mm-hmm. kooku nag la Moxtaar Seck ni lu yàlla namm daa war. Mm-hmm. lu mu eggale daa jot. waaw lu jotit yomb. Mm-hmm. li nga bëgg ak li yàlla dogal <coughs> buñ bokkee daje gëmal ndogalu yàlla te ñaan li nga bëgg ndax ku yegg dañ laa gunge. ku xam dañu laa wax. ku ñëmé dañ la téye borom alal dañ koy wék waye borom xam-xam dañ koy rus. dañ koy rus ku ñu rus ak ku ñi wék nak kuñ nga ñëmé dëgg la té yoon dañ koy jang ay xalaat dañ koy wax. wërna na taxaw ci mbolo di wax ñu lay dégglu bu la adina safé ndam la. Ah. waye bu la yalla safé nattu la. dëgg la kon yow mi wax bu xalaat ni nit ñi doyé da nga hmm. xalaat la yàllay doyé dëgg la bayyi xel li nga ak yalla bi nga wacc fi ci kaw suuf bala jakarlo ak yalla ëlëk ndax doomu adama yépp Mhm. yàlla nu yónni fii ci àddina mhm. ma ne ki la yónni nag waaw toog fa nga jóge mhm. jiitu la fa nga jëm waaw ànd ak yow teg ci loolu luubal ca yónneen ba deni dala koo muñal muñalu la dalay te ku ñuy déglu ku ne nag san ñàkk a wax dëgg ci biir mbooloo ñett la ko yóbbu booy wax ngir bëgg sa darajey bopp doo wax dëgg dëgg la booy wax ngir bëgg a darajaal ñi ngay waxal doo wax dëgg la boy wax nga di ci seeni lu nday jox do wax deug deug la domi julit piir su ko jantam natt na ubi néegum muñ te dugg ci te yalla ay yàllaay wërse go adina bul la ku sa numéro genn nga jot wërna ku sol dalu mbax te ego ci mbax nak ñett keppatee nga dem hmm. yakam ci waw ñaka mandu gi sa bop est-ce que yakam te ñak ñi muñ mandu hmm. wul ñak ñi hmm bo gisé sa bop ñak ñam da hmm barké boko riñaanee mu jatt la waaw boko forcé mu dëpp waaw daraje boo ko sa bop mu sonal la kon batum ñepp yam ci ah. ñetti poyé la juddo ñepp dooma adama la waaw ku juddu di liir ku déni ciel waaw waaw ah waaw wuute gi nit ñu wuté la juroom benni wuté la ah. danoo wuute fu ñu waaw wuté nun juddo uh-huh. wuté nu ñuy wuté wuté fu ñuy amee bu ñu wuté ba koy duggal waaw lay xamal ni la bu ñepp yamanté du tawat kenn soxla dedet bii jamono nag mhm. boo bokkee ci askan yaat te amoo xaalis mhm. mbooloo moo dëgmal say bokk ëpp ca loo di ni waxuñu la ko dañ la seen noppi alali àddina ko muy tax a ñaaw mhm. di nga dem ba hôpital fekk fa boromi carte grise ak étage ñu jox ko diggi kaasi meew naan ko teg ko kon jëru ko déedéet amul kon ku baax wettiliku dëgg la ku yaru falu ku réew réer ku rëy ñàkk ña boroomi million bu hmm. ko xaj mattee jëru nga yedd xaj ba ñaari xaj lañ waaw ndax su baaxan wettili ku ba xaj ko matt mbaa mu ko timb mu ko jot wallaay dëgg la donoon nag kala jur hmm. waaye mela kala yar kala yar cala yàlla tàggatale ñaari deel nag bàyyeeg ñun rek muy daara ak dayira baa siin mi mara baa siin mi mara baa bëskil tubaab jeex na <laughs> boo jàngul jongoo takkoo tekki woon ak walaa kaana tubaab yi wëreelu nga wër ndënd ak tamaak sabar bañ bëggee siiw lan dem jëwal waaye jalaaw bay leen juddoo waaw tabalaay seen sëriñ moom mi tëggal islaam est-ce que bala ngaa xam ne donoo dër nag nga dàq ji nax ba mu dañum ñàkk te kenn du ko sikkil dëggu bopp da koo donn da koo donn kenn du ko dono kala jur waaye mela kala yar kala yar sëppin bu rafet bi taxawal ci dëkk gor su ne am na ndax golo am na nday golo baay golo maam golo koo seen xam ne yaari golo ko jur waaw golo jër mi la kenn da ko judd waaye jikko jaa tool bu mu dugg yàq ko baykat bu ko seeni nekk ak dee kon ñu defar jikko yi bala ñoo dem ci juddu yi dëgg la góor ñeenti sikki jigéen ñeenti sikki la am mm-hmm. ñeenti sikki góor nag mooy xaste ak dóor ak fiir ba mu ëpp ak ragal njël waaw ñeenti sikki jigéen mooy soxor siis bañ gan bëgg nelaw ba mu ëpp waaw jigéen bu ëmbee rek ba ko war naa xam doom ji mu ëmb su juddoo ni muy mel. waaw jigéen su ëmbee doom ji baax. koñ bu mu nekk. nu mhm. mu romboon te gis ko dañuy yàq wàllam la ndeysaan doom jaa nga ëmbal si ci biirum ndayam ca biirum ndayam dëgg waaye jigéen ba mbee doom ji bon ëtt bu mu dijji dañ ko fay romb bu këdd ko ciw taat jugal taxani mbangarooti biir du pal biir du pal dëgg la waaw wax nga dëgg de moom ah ak a wér sëy boo ci jigéen tir bi naaram doomi ñoo koy siisi barke bu ko bàyyi aman bako joxe kam gëna nam ndayam la ko jox dakay jox deug la ndax yar ba xësee dañ mon doom adam bi def mënu ko fajj koo faj sëg akom reefu kenn mënu ko fajj moo tax ñett kenn du ci jëlee ndam hmm. yafalu màggat faj ku reep suuxat mbop kenn du ci jëlee ndam déedéet lay wax nga dëgg suuxat mbopp yafalu fajj ko ku reep suuxat mbop kenn du ci jëlee ndam déedéet foogay jële boo ronoog guy nag séenoom tàgg kaw bu la cëg dégg jamee da lay rek ndax danga ko dul foofu waaw jigéen ci nga xam ne wax ko mu bañ jabar mottali sa kàddu bu mottali sa dépasse waaw bu mottalee sa dépasse mottalee sa kàddu dëgg la koo mënta régal mënoo koo réglé déedéet dëgg nag bu duggee ci bureau ta génn mag la ñay ndax mag ba ci bu mu waaw mu bu dee mag mu dëng jikko sawara dong leer sawara sawaraay xii taalub dëkk ba néegi ne goy bu Wow, may damug nit delloo ci mbaa kenn du reer waaw waaw waaw ak wér garam place bo dem ci dëkk nak ñaari tank bu du aha borom kër gu amul baat këram ak borom lal bu Wow. waaw du ko sa ah, waaw ku yalla dimbali génn la ci askanu yaatu sa baay tan la jigen ju muy sa yaay des foo màggee sol sa dàllu bàyyi uh-huh. mu fees dell sa tànk nga sol sa mbubbum bàyyi kenn wóombu ko lu la sa